waaw jàngat bi ko ay sotti ni mu koy defee àllarba bu nekk xew-xew nag la actualité am na ñaari fee yoo xamante ni bëgg nañ cee taxaw. Mm-hmm. benn bi mooy euh, rapport pour euh, rapport IGE inspection générale d' état bi nga xamante ni barki démb jébal na ko njiitu réew mi muy rapport 2016 2017 2018 ba 2019 ci ni nga xamante ni moom la ñu yoree alal réew mi ñu gis nañ ak ay kilifa yu bëri yoo xamante ni ci nguur gi lañ bokk nan ko yoree daal xaw naa dëng trop ci njubadi.

Euh, dëgg-dëgg lo wax rek waxat waxat ko finalement sax da ngay euh, bu dee tuba mo nan euh, la répétition elle est pédagogique bii nag moom elle va devenir redondante <laughs> n'est-ce pas parce que tellement dafa dafa man man ñima yërem en réalité mooy ñooñu liggé ci corps de contrôle yooyu imagine nga jël sa temps euh ak temps nu mu méttee saytu jël ki coono bi ah merci petit petit mu mm, ku kii la ah petit petit est très est très professionnel waaw ah, dama xoolal yow situation bi foofu waaw ah, loolu mooy bi tamit ku ne ku ne am nga sa point corona yooyu tamit dama dama xoolal point bi rek fu mu fu mu féete. Ah, waaw xam yow nag yow nag yaay ki leen koy wax leer man Cheikh Tidiane Diaw mi kii kii kii ko les mercredis bu ma jàkkaarloo moom bu teggi ndawal la amul benn yar <laughs> léegi euh, ñooñu. Euh, Fati. ñu xëy suba liggéey xool ay ay euh, jàngat loolu rek la ma war a jël ci temps énergie bi ngay jël. toog di jàngat saytu ak tamit déconvenu yi ngi ciy am mooy dinga dem saytu kenn ñu toroxal la nga soxla ay document duñ la ko jox bref daal ñu def liggéey bu yemb ñëw jébbal ko kañ ko war a jébbal yii mu teg toncam yii mu bàyyi mu jàll yii Euh, euh, lépp en tout cas euh, résumé bi daal mooy gis guñu kenn ku ku ku ñu sanctionné ci rapport cours de contrôle. rapport bi ci boppam nag man ñoom cours de contrôle sa rapport bi tamit man leen rek moom ma ci xaw a dérangé. Mm-hmm. ma def ma def parenthèse boobu mooy. Euh, finalement euh, euh, opinion bi dañuy elle se perd parce que fu muy remonté moo mooy loin très loin dañuy dañuy benn suppu kanja benn suppu kanja boo xam ne un peu illisible ci koo xam ne xamoo li xew ndax dañuy remonté ay 2008 ay ancien DG de ceci ancien DG de cela ko kii woon nangam nekkul loo xam dafa ak bu fekkoon ne dañu war a génn chaque année mën nañoo jël exemple par exemple francophonie 2014 2013 lañ commencé liggéey lañ commencé liggéey donc euh, yooyu aussi dafay leer ne euh, dafa euh, sa sa invité baa ngi ne di yëndu Chérif <laughs> <laughs> dafa leer ne loolu tamit

pour ki nga xam ne moo téye pistolet bi mu mu mën a jël tiire ak tamit mun na noppiloo mun la def forme de pression la chantage mi ngi ci boo àndul ak man wala boo deful c'est-à-dire euh, arme de guerre la destruction massive mm-hmm. maintenant c'est qui kii kii paie des pots qui n'a pas cassé mais c'est le bi le contribuable parce que suñu xaalis la ñuy jël euh, caxat caxat caxatee ko mm-hmm. fii ku ñu fi nomee dara li nga ñu ko def mooy sécuriser sa bopp mm-hmm. caxat caxatee et puis leer na la ne Euh, ce ne tu ne seras jamais plus xanaa euh, waaj a daanu. kay ñëw buy buy buy lan lañ moot mën la ci dugalaat maintenant euh, yooyu nag.

dégg dem naa sëñ dégg naa sëñ Mandiaye Ndiaye naan dégg naa sëñ Mandiaye Ndiaye naan man dama candidat la 2024 ñu ne ko kon xanaa kon waa ji mënul def troisième mu ne ma en tout cas man 2024 candidat la xam nga loolu wax wax neexul dégg neex mais la mën a xama Chérif waa ji mi ngi kii pareegul kii pareegul te lii da koy permettre gis nga rapport yi yëpp

ça la bamboula, allez-y à fond la caisse. C'est vraiment à don quoi, il ne faut pas hésiter, ne pas pas, ne lésinez pas sur les moyens. Donc, euh, moi, il est malheureux. Japon, il y a un sacrifice, comme un y de des sacrifices au moins pour on est né. À part le sal, je suis sal. Non, pour cette fois-ci, quand même. Il ne ah, j'aimerais bien qu'il me prenne au mot, mais euh, je, ne pense pas que, le président Macky mais tamit man bëgguma revenir sax de bëgguma je veux pas tirer sur l'ambulance mais xoolal rek yow ñëw ñi ñi ñi ma jiital ñi la ñuy def rek Cheikh Omar Anne mais Anne euh, euh, euh, Koundou lam fa def rapport yi yu <laughs> mel ñoo ko laalaat mu mu promouvoir ko ah maa ngi gis si laa naan Euh, proche du Macky Sall les proches de Macky ma comploté. Euh, parce que foofu ci taal bi sax laa bëggoon a laaj. saa yu rapport génnee quand même. réaction am réaction commencé taala ci ni gën a. xaw mu commencé moom euh, di kii gis nañu ko ba mu fi amee ci kii boobu aussi Omar Youm gisoon na ko à l'époque mi nekkoon directeur cabinet même fële bu président Macky Sall. Ah. woon ci ñi xam ne ñoo of ah. nag dafa mel ni kon dañu commencé def ay sorties médiatiques pour répliquer vérificateur. alors que seen liggéey lañ def. man man fii dama yërëm vérificateur yi fii moom ku ci tabb vérificateur yi j'espère que seen salaire na euh, nga téye ko noon naan pot ndox nopp e parce que non IG moom waaw e ah, waaw ah, ah, e man yàlla ma fa yàlla yóbbu mais c'est grave man de damaa xaw a bëgg a optimiste rek parce que mën nañoo yaakaar ci commission nationale ba nga xam ne bëggoon président bëgg na koo teg pour ñu exploiter rapport yi deuxièmement aussi inspection générale d'État président moo leen di missionné yaa ngi fàttaliku polémique yi amoon sax ci lettre de mission yi mu joxoon ñaari inspecteur yooyu pour ba lettre de mission bi feeñ finalement comme moo leen di sant pour ñu dem defi ah nañu dundee yaakaar rek te commission nationale commission bi nga xam ne waxoon waxoon na ni dina ko teg bi waa of nag jébalee seen i rapport mu ne day teg commission pour ñu exploiter ay rapport loolu defe naa ni ku sa mbootu matul boo yekkee gamb da ngay sonal nit ñi wax dëgg fa yàlla c'est vrai bu ñu wékkoo ci li nga xam ne moo fiy xew mm. yaakaar amul waaye ñu bañ a

Euh, l'histoire retiendra da ko euh, nu mu duggee léegi ci langage usuel bi mais euh, yii li ñuy gis nii wax dëgg yàlla ça ne nous encourage pas ça ne nous pas optimiste te honnêtement président Macky Sall moo tuddee partem APR yaakaar yaakaar boobu nag dafa am solo yaakaar dafa am solo espoir ndax yi faati ni regret bonee ci nit noonu la ñàkk ñàkk ñàkk yaakaar grave ci nit mm-hmm. te ñun président Macky saa li nga déggee ay ñooñom di ko bàkkoo ak ñu bëri sax di ko wax ne c'est le président mm-hmm. qui est né après les indépendances mm-hmm. dafa waroon def différence te euh, raté na le euh, coche bi ci ci premier mandat woom mais bi nga xam ne wax dëgg fa yàlla man dama gisul fan la mën a jaay ban mig mag ba ma forcé yëf ya na fexe ba mais euh, bi génn nan ko sax introspection. la responsabilité responsabilité introspection. mais légui actuellement communication bu lay def. mais introspection introspection. Euh, xool sa bopp mais introspection bi jiitu bi moom moo war a def introspection ndax moom lañ jël moom lañ jébbal suñu réew mi mhm. mu jël ay nit tànn leen wóolu leen tànn leen euh, xëy na moo moo yor ay critères am mais dañ jàpp ne critères yooyu excellence ba su war a jiitu euh, mu bu weesoo nag ndax moo ñu digoon ba tey euh, la la patrie avant le parti mhm. kon bu jëlee ay nit ñu buñ ko buñ ko wóoloo ne ko doxalal mu jël ay nit dénk leen moom moo war a góorgóorlu affaire bi mu rapport yi di tegloonte mhm. ci bureau am di mhm. poussière moom moo war a def introspection mhm. pour nag mën a ñëw ci responsabilité bi mu wax mais yëf yi dafa war warul nekk rek de vingt mots comme ça creux ay slogan ay wax yu xam ne koy wax nii pour sëlal nit ñi dafa war a nekk loo xam ne dafa am yëf dafa dafa dëgër c'est c'est important bala ñoo dalal gan gi laay ah, <laughs> parce que gan gi ci affaire bi Abdoulaye Abdoulaye moom waxtaane sax parce que yak tanoor ka mi yéen a bokk seen peut-être code boobu un mois quand même un an après bi fi jógee ba légui surtout héritage bi fi bay ci wàllu parti socialiste est-ce que taway ba japp nga ni matna non xamna ni mom bu ñëwé day dana rafetal lepp mais nak gëw ni Ousmane Tanor ñe ci bopam yalla nako yalla yàlla yoon amin ya gëw ni mom ci bopam bég na ci parti socialiste bi nga xam mom la bayyi hmm. parce que parti socialiste bi mu bayyi mooy parti socialiste bu nekkatul sax ci yoonu conquête du pouvoir mm-hmm. wax dëgg fa yàlla parti socialiste bu tey bi mm-hmm. soobuwul ci yoonu conquérir le pouvoir mm-hmm. alors que dañu koy yoroon ay at presque cinquante ans donc gëw ma ni moom ci boppam dana bëgg ci parti socialiste bi nga xam ne mooy bu tey te mu bàyyi ko fi fi mu am na loo xam ne baax na ñu ciy taxaw. Mm-hmm. mooy ci 96 congrès bi nga xam ne nii congrès sans débat la ñu koy wax. <laughs> bon ñu ànd ak moom nee débat am na section ya mm-hmm. ba def. Mm-hmm. donc ba ñëwee foofu centralisme bi la woon. mais loolu moo jural li ko top ba mu joge fi mhm. parti socialiste la tambalé commencé di yaqku xeyna nak mom méritam moy mhm. bi nit ñi di bayyi gal gi après biñ mhm. perté pouvoir bi té lolu ay opposants sax naw nañu ko ci bi ñepp di daw mom dafa tok yor ko xeyna nak nermelu biñu ñu won après 2000 mo metti ba xeyna mu jafé placer wat parti social ci conquête du pouvoir mais en tout cas du parti socialiste bu Senghor bu Abdou Diouf mom lañu am tay lolu nak ku ko waxul xëy na da ngaa bëgg a gëmm say bët. mais parti socialiste ba woon. Mm-hmm. nekkatul bu tey. Mm-hmm. ñu laa ni ngi reetaan na. Ah, waaw loolu moom nag moom <laughs> danaa ko nangul danaa ko nangul mu ne mooy première force politique danaa ko nangul mu ne mooy gauche bi sax parti socialiste tey. mënu mm-hmm. ko rassembler. Ah, alors que parti socialiste dañu am sax <laughs> loo xam ne dañu bëgg rassembler les gauches. mais ba bëgg rassembler les gauches ba pare nekk ak ay libéraux. bon xam nga day doy waar. donc loolu yëpp mais xam naa ne dana ko yaatal. daanaan la moom daanaan la jërëjëf <laughs> euh, jërëjëf ci collaboration bi ak euh, disponibilité bi ndax dañ la fekk ci liggéey nga ñëw euh, gunge ñu fi nga fanaan di def monté benn document bu am solo waaw Ablaye bàyyi bàyyeegu bàyyeegu rek si mbégte jàkkaarloo borom face to face <laughs> Aïssatou daanaan la moom tamit mi ngi noonu Abdoulaye Cissé moom la ñu doon àndal mu gunge ñu ci jàngat bi ànd kook Aïssatou Diop Fall Aïssatou day desandi ak ñun léegi léegi ñu